comme chercheur Ismaïla Madior Fall du chercheur sa un malhonnête daf ñu yàqal tant que ay nit la yoo xam ne yàq rek la ñuy def plus que ñu leen fay bàyyi plus que ñu ñu yàqal ñun nag mënuñu xeex benn projet teg ko fii ay intrus di ñu ko yàqal man dinaa xeex intrus yooyu bañ jóge je ménager aucun effort pour xeex intrus yooyu bañ jóge mooy ki nga xam ne moom mooy Abdou Karim Diop mooy ki nga xam ne moom mooy maaxam jàlloo ki nga xam ne moom mooy Mamadou Seck ki nga xam ne moom mooy Hamadi juuf ki nga xam ne mooy Siré Clédor Ba et cetera et cetera danaa leen xeex bañ jóge fii comme nu ma xeexee seen baay Macky Sall ba mu tëb noonu laay teg accéléré gars yi dóor markage à la culotte bañ tëb. yéen a may dégg recteur de l'université daf ñuy yàqal yàqal kese la ñuy def baaxum ñoo ñëpp dama leen di xeex man nu ma xeexee seen baay laa leen di xeexee. te damay am ndam man kese damay am ndam ngeen toog damay am ndam ngeen fekk ci ko damay am ndam ngeen jàpp ci damay am ndam man damay am ndam dama leen fii jëlee bu ma leen waxee takk leen ko téere dama leen fii jëlee gars yi dama leen di buub ñoom ñëpp tuur ca ku xam moo laa xam dëgg xam ni man ku ànd ak conviction laa sama bu ma matee damay dagg dagg dama leen fii jëlee par la force doole mbaam recteur bi yàq ci yàqal Sonko lay jógte yàq kese keroog étudiants yi bu ñu koy yuuxu Sonko sax moo ko doon sauvé mi ngi fa ba léegi Juan Branco préparé wu pour ñëw wàcc fa yàqal na ko naan Juan Branco dara du am mi ngi noon Juan Branco dafa mujjee changé yàqkat yi nga xam ne ñun dañ leen a xeex dañoo woo le président Diomaye ak Ousmane Sonko ñu jëlee leen fii c'est des postes stratégiques Siré Ali a fi jóge c'est des postes stratégiques xeexuñu pour ñoom ñi fi toogaat c'est des postes très stratégiques nañ leen fi jëlee manqué wuñu ay compétence manqué wuñu ay nit pour changer leen manqué wuñu ay nit pour changer leen nañ leen fi jëlee dëmm yi def sale boulot nañu leen fi jëlee famille yi kontaanuñu famille yi ñu rey seen doom sosal leen kontaanuñu famille yi nee nañ saa yu ñu gisee Abdou Karim Diop ci tribunal bi seen xol day dagg ni may laaj naan ma lan moo tax yéen seen waa ji mënu fi jëlee ñii te ci man la ñuy ñëw ku jotul jomaay jotoo Ousmane Sonko ci man ngay ñëw man damaa sonn man dama sonn laa la wax dama sonn nekkuma ci nguur gi duma ci ministre duma ci député ma ci gën a tas maa gën a sonn Sénégal kuy jooy ci man ngay ñëw ku bëgg am loo wax Ousmane Sonko ci man ngay ñëw ku bëgg xam looy wax jomaay ci man ngay ñëw nalawuma lekkuma naanuma ndax njaboot sénégalais yi dama ne famille victime yi nee nañ te am na lu leen metti torop ci di yow di gis Abdou Karim Diop ba léegi tribunal ba mooy ñu sosoloon seeni doom di yow di gis ci tribunal bi ki nga xam ni moom mooy Maham Diallo mi sosoloon tiiñal seeni doom jiñ leen ay terroriste di yow di gis ki nga xam ni mooy Mamadou Seck ak baaxum ak et cetera ak Ari Sileba et cetera fam cetera famille victime yi nee nañ am am nañ lu leen metti lijël lijënteleguñ leen seeni cas fajaguñ leen seen naqar ba pare bàyyi fa criminels yi loolu ñu ngi koy jooytu ñoom ñoom am nañ leen ci metti parce que nit mënul rey sa doom sosal sa doom tiiñal sa doom taqal sa doom ci place bu mu toogoon toog fa ba léegi loolu ku ku ko naqarluwul rek rey ñu sa doom ku ko naqarluwul rek ñoo ñu ñooñu fenaluñ woon sa doom loolu nag man maa ciy jot jomaay du ci jot sonko du ci jot man maa ciy jot ndax sénégalais yaakaar gi am ci man di ñëw di jooy famille victime tem a ngi jooy te noppeeguñu amaguñ justice ba pare ñi tooñoon seen doom yi lu seen doom yi ñi ngi dox seeni soxla amuñu lu leen neex loi dem bi loolu beneen affaire la mënaguñ ci wax beneen affaire la parce que il faut xam ne ci loi d'amnistie bii loi d'amnistie bi ñu tëgg waxoon naa leen ko avant ñu koo tëgg loi d'amnistie bi nag dafa am ci lu mu toog loolu moo tax déggoo ci man bugguma jiitu paaka ci mbartal ndem xam naa ci lu bari nag mais bugguma jiitu paaka ci mbartal ñoom njiit yi waxuñu ci waxuma ci en tout cas loi d'amnistie moo leen fi bàyyi ñoom man moo ma libéré moo libéré Juan Branco moo libéré ñeneen ak ñeneen loi d'amnistie boobu moo tax tey Ousmane Sonko doon premier ministre loi d'amnistie boobu moom moo tax Diomaye Faye doon président te loi d'amnistie boobu dafa am lu mu lalu boo xoolee même suñuy njiit waxuñu ci loi d'amnistie bi déglu leen bu baax ñi fi ñëw bees sax waxuñu ne ay dañuy abroger loi d'amnistie waxuñu ko kenn te damay ragal problème am bu ëllëgee ngeen taxaw di ñu di diñu diñu accélérer di ñu agresser ak yooyu ay loi d'amnistie attention attention am na lu ñu leen mun a wax am na lu ñu leen mënta wax dama ne am na loo xam ne bu ci njiit di waxul man du man maa ciy jiitu di leen ci wax parce que man dama bokk ak ñoom ànd ak ñoom ci combat bi nay leer attention attention ci côté boobu bugguma cee dugg bugguma cee dund bugguma cee dugg en tout cas xam naa ni daal comme ni ma ko président Diomaye fay waxee woon loi d'amnistie bu ko libéré moom libéré Ousmane Sonko ba tey ñu kii doon président kii doon premier ministre même loi d'amnistie boobu moo ma libéré même loi d'amnistie boobu moo libéré Juan Branco ba tey mu mun a dugg ci dëkk boobu te kenn téewu ko ndax six mois derrière mënu fa woon dugg kooku loi d'amnistie moo ko fa duggal moo protégé ñun ñëpp donc loi d'amnistie boobu noonu man du ma assuré kenn danañ ko abrogé duñ ko abrogé li seen njiit di wax daal leer na nee na ñi sàcc dinañ goxi waxul ñu ay ñu rey nit ak ñu tiir ay nit ak ay ñoon non suñu njiit yi ñu laaluñu loi d'amnistie bi bu ñu wax ba léegi di communiqué déggu leen fu ñu waxee dam d'amnistie bi dañ ne ñi ñu gaañ ñi ñu gaañ dinañ leen joxi ndàmpaay ñi ñu rey dañ leen mais loi d'amnistie bi amul fu suñuy njiit wax dinañ ko abrogé dinañ topp ñu rey ni yi déggu leen ko fen musu leen dégg tamit seen discours loolu nekk ci donc loolu lu mu lal dafa lu mu ëmb dafa rëy mënuñu ci nag dugg mënuñu ci développé nay leer je le pas de loi d'amnistie moo ko teg candidat bu leen bul jaxase samay wax waruma tax tontu benn nit ñaari nit parce que bu may développé boo dul déglu parce que école boo gis classe boo gis dina am nilaar prof bi di wax A moom muy wax Z man maa ngi wax libération kële di ma wax ay waxu candidat buñ nekkee ci kaso bi la nekk la la nekk candidat donc man wax ma waxu kandida classe moom nu mu xat xat xat dina am nilaar nu mu xat xat xat dina am sujet boo joxe dina am hors munoo joxe sixième te du am ku am zéro wala deux ak nu professeur bi ay am déontologie am am am am am euh, stratégie ni waxtaan sax du tee dina am ni laar bu génn quoi te nilaar day arrière loo classe parce que professeur bi day développé développé développé développé ba mu sori benn nilaar bu yëkkati loxoom rek hors sujet prof bi bugg a bàyyi classe bu doon déglu topp nilaar ba pour mun a am lu mu def ci bopp nilaar bi lo nilaar dafa métti de nilaar ci classe may wax waxu libération amnistie ko waajir mi may wax ay candidat yàlla nañu yàlla musal nilaar ci yàlla yàlla musal ay nilaar ci classe yàlla nañu ci yàlla musal donc les gars combat bi dafa sori dafa metti combat bi dafa sori dafa metti léegi nag lépp stratégie la gouvernement bi bu ñu tollee ci ab solution dinaa wax bu ñu toll ci benn solution du ma jiitu paaka ci mbar loolu day leer waxuñu dañuy topp ñu ñu rey ñu topp ñu reyaate loolu déggoo ko fenn dañuy topp ñu sàcc dinañ ko goqi ñi sàcc dinañ ko goqi ñi sàcc alalu askan dinañ ko goqi waxuñu la ba léegi ñu rey nit yi danañ leen topp jàpp leen déggoo ko ci benn discours du président du usman Sonko nay leer donc foofu am na leneen lu fa nekk loo xam ne mënuma ci dugg ndem comprendre naa ci lu bari léegi loolu sax du sama combat <laughs> du sama débat sax déjà bàyyi ma génn foofu man sama projet laay protéger baal ma génn foofu ki nga xam ni moom mooy Assane Fall moo ma tax a jóg <laughs> man moom bu ma mattee du ma bàyyi tant que libéré wuñ Assane Fall du ma bàyyi xam ngeen man noonu laa mel ci xeex léegi léegi woote naa di côté de dik ak ñoom Cheikh Baara Ndiaye et cetera et ñi ngi fa boobu ba léegi mais xam naa léegi mu génn. normalement nii nii boo deful ndànk sax dans quelques minutes wala quelques quelques heures Cheikh Bara Ndiaye dana génn woote naa foofu dana génn ci jàmm dina dox ay soxlaam boo leen foogee ne mun ngeen ñoo traqué nii napp ñu noppiloo ñu ci ay plainte gi yi nangam da ngeen di nax seen bopp loolu munul nekk te wax naa ko gars yi nee naa leen ñu nekk opposition di xeex di taxawaalu ci cour des tribunaux yi bëgg a yor nguur gi bëgg a taxawaaluwaat ci cour des tribunaux yi sàcc mënul porter plainte victime am mënoo sàcc nit ba pare dem di ko porter plainte mu ne la sàccee nga dem porter ko plainte sàcc du du du dama ne un bourreau du porte plainte un victime nay leer fii kenn duñ fi tëj kenn tant que ñun ñu ngi fi man maa leen ko assuré dama ne duñ fi tëj benn patriote laa la wax wax ko fi tej di nga sa taat dina tàng trop benn patriote lañ fi dul tëj benn patriote lañ fa du Cheikh Bara Ndiaye du Assane Fall kenn lañ fa dul tëj lañ fa tëj kenn te xool s'ils veulent la guerre ils l'auront je déclare s'ils la guerre ils l'auront benn patriote lañ fa dul tëj kuy xaar ñu tëj fi patriote di nga di nga duul diwoo man maa la wax loolu et Assane Fall sera libéré incha allah très très prochainement léegi sàcc suñu alal ñu leen di porte plainte ngeen naan da ngeen ñu porter plainte leen ngeen retourné dañu porter plainte léegi justice bi léegi ay ñoom Mame Mbaye ñoo ñooy dem di porter plainte ah ay Thérèse Faye ñoo ñu porter plainte kan la sañu nday yi liggéeyu ñun ba sàcc yi nga xam ñoo sàcc sañu alal dañu porter plainte c'est impossible loolu mënul nekk loolu mënul nekk donc pour l'instant tey jii ci loolu la ñu